du jël fii lay far wala fee lay far Karim Meïssa Wade délégué na daal yëf yeeg coow leeg wax jeeg yëpp jël na ko jalax ko papam ne na ko gérer kaa bi man mënatuma ko gérer comme bëggoon naa bokk bokkuma léegi nag je passe à autre chose comme je passe ci beneen yéenekaay bii di critique consigne de vote avenir politique le journal mu ne maître Wade à la rescousse de Karim père bi mooy dawati encore papa ji yàlla yàlla guddal. xam nga tax ma ne la bu ñu jaaxle sax bu ñu xëyee ñu ne PDS jàppale nañ mooy jàllax bii ngay wax. Ah. ndax Karim li mu wane yépp attaque frontale bu ma njëkk a dégg Karim Karim def ko. Mhm. Amadou Ba la. di ko jiiñ yaa ngi fàttali tuitam boobu noonu mu bind ci Amadou Ba. Mhm. waaw waaw waaw si dafa mën combine di nangam di kii ba mu naan moo yónni euh, kii euh, Thierno Alassane Sall. Mhm. léegi nag comme def na pexem yëpp ba pexe yi sottiwul léegi ñu maa soo ko dégg mun nañ déglu papaam yi mu naan def yëpp da nga gis mu tudd ci maître Abdoulaye Wade. waaw léegi nag bu demee nag ba ni nañ déglu maître Abdoulaye su dee ni dafa war a wax lu uuteeg moom. ah loolu mun naa war ni ah décision bi day secrétaire général national bu parti démocrate sénégalais moo ko jël kon nañ ko topp du ci commentaire du ci wax bu demee ci Amadou Ba. loolu loolu di ragal naa ne fa la jëmaa ndax am na ci ay yi ma ci jot yoo xam te. na ah, daam yoo ci jot sori na lool. am na information eh, am na yooyu tëyguñu ko ñuy médiation ak kan nga ko waxtaanee. sori na mu bi nga ko xamee koo ci waxtaanee daw cee laal ayoo ba. am na loo ci loo ko ci jotatul. moom moom ko gën a xam. kon da nga ko ko jàllax da ko ko jàllax wala. bokkut ak lettre bi wala wala bokkut ak lettre bi. Nabou Cor ak lettre bi. ma ni bi bokkut. <laughs> da ko ko jàllax wala. léegi moom tey bu dinañu leeralal par A ou par B. déedéet faaw mu leer ci ñun. te lii ngeen di nii sax dafa fàttali wayu Cheikh Lo ba jàllax jàllax fu mu ko jàllax jëmee du xam ngeen way boobu saa ñeeg Fall Ndiaye Fall Ndiaye yaaram bien boobu dafa ma koy fàttali critique ata billaay ñu ñëw ci bés bi le jour mu ñëw ci moi président campagne électorale mot pour mot mot MTOS mhm. différent de mot MAUX Khalifa Ababacar Sall mu ne les producteurs disposeront de semences de qualité Pape Djibril Fall aussi mu ne un statut spécial pour Touba mu ne et les autres cités religieuses enfin Anta Babacar Ngom on en parle mu ne elle roule pour le tramway ah. why not Boun Abdallah Dionne mu ne le service militaire sera obligatoire Mame Boye Diao tamit je l'entends presque pas ou en tout cas <laughs> li muy liggéey c'est presque pas relayé je placerai l'humain au cœur du développement c'est comme tu disais seen charge de communication et vraiment oh, il y a y beaucoup beaucoup à faire. mais ñoo ko def yow kii bi ñu daaxoon chargé de commune yëpp jox ma candidat yi ma géré leen problème du am dëgg la ah, sama fit sama capacité dafa sama niveau dafa dépassé yenn niveau yi le témoin mu ne selon son directoire de compagne on parle de Amadou Ba mu ne il va passer au premier tour seetkat yi wax nañ ko de ak ñaankat yi am na ci ñu ci génnee kaamil waat Amadou Ba mooy gagné tey mooy gagné suba waaw ah. ah, premier tour nañ wax lépp ñoom xanaa ci sondage bi lañ ko teg sondage bi di am na de ah. réeroo am na de. xaw ma fuñ ko teg waaye en tout cas daal seetkat yi ak ak kii ak kii ñoom nee nañ mooy gagné premier tour. ah oui ma ñun fi li ñu tàqale ak élection ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñaar fan ñett. Mhm. gën kaa bëri ñeent. Mhm. nanu bàyyi ñu gisee suñu bopp. Mhm. te ñu jël confiance bi yëpp dénk ko ñiitaan tànn. ñu fexe ba seen xel yi. tàkk ñu xam li xew. tànn ki ñu jàpp ni moo gën ca bés ba. Oh. ñu ne ko wiiw ñu ne kii la. Mm-hmm. lu may loolu. Oh. ku ne mën ngaa gént. mën ngaa xalaat mën ngaa nangam wax. Oh. ku ne na def lu ko ku ne na def lu ko saf. waaw ku mu neex na mën nga koo gëm ku mu neex mën koo jàpp par contre. Mm-hmm. par contre waaw. li ma jàpp ni xëy na moo gën a rigoureux. Mm-hmm. te war a mën a tegu ci xam-xam. mooy ku koy wax. Mm. nga indi ay éléments d'appréciation léegi nga bàyyi. mun nga ne ah man de jàpp naa ni moom mun na tout peut se ci premier tour. fii laa ko teg. mais yow kan ngay waxal ñi jàpp naa ni kat ak ñi ñaan wala. waaw c'est c'est c'est exclu premier tour moom mënut a nekk il faut second tour. Hmm. élément yaa ngi nii. Hmm. waaye karmat yeewu nii. déet man man yeewu ni man ay coowal euh, ayoo ba fay bu ma ci kenn dugal vraiment yeewu ni ay coowal coow yooyu bu ma ci kenn dugal vraiment ay dama directoire de de de campagne car man yeewu ni c'est de bonne guerre nit kuy dem lamb da ngay jàpp ne yow yaay ah, ñoom yaay dañoo jàpp ne élection yi ah, ah? cëpp lay dañoo jàpp ne ñoom day am loolu dañ koo jàpp de ci seen xel Pikine Géejawaay ak Rufisque de ci Fall ma nga fa woon te promettre na leen ne dina am ay lendemain yoo xamante ne ni mu ne kii euh, kii chante pour la banlieue <laughs> banlieue moom ndeysaan ñoom ñoo gën a dee ci àdduna bi Walf Quotidien bu ne inondation en banlieue Dakar waas Déthié Fall gis nga engagé wu na nee na mbënd mi Déthié neen dina ci jóg yaa rappli de mbënd à Guédiawaye te xam nga banlieue bu ndakaaru sax loolu dinañ ci ñëw seen berte gii ñu tabax nga xam ne bu tawee ndox ba lay tëmb ca kaw man réew mi mm. xaw ma nu nuy tabaxee man xaw ma xel xaw ma comprendre ma xaw ma ban système la nuy demee dinañu wax plan décennal bi déjà 750 milliards yi ah ba ñu annoncé waat beneen plan. loo ci diggante bi yëpp la ca amoon. parce que moom it dafa engagé wu ni euh, kii bi loi d'amnistie bi. ñëwal foofu ak liñ ciy wax yëpp. insister nee na bis bu jotee ci réew mi dañ ci delluwaat situer les responsabilités. waaw waaw lu ñu def ñu def. waaw loolu bokk na ci ay engagement. moo ko te wax dëgg neex yàlla it. ak mm, loo mën a wax. Mm. mu ngi ci campagne bi. mu ngay campagne kay. ma ngay dem ma ngay ñëw. demaat na te yàgg na ci àll bi. yàgg na ci àll bi te ku xam àll bi la. Mm. maanaam ku xam réew mi la. de ci day xam ni dafa xam réew mi. Mm-hmm. ndax def na ko defati ko te bul fàtte ne attention. Mm. li mu nekk numéro 2 ca ca réew mi mi. moo daan monter cellules yi un peu partout. waaw parce que dafa yàgg ci politique waaw nan ko bàyyee xel ah. dafa yàgg ci mm-hmm. politique. waaw soutien Benno Karim Wade mu ne poussé vers Amadou Ba. Mm. bu ci wax mm. bu ci wax bu ci wax bu ci wax journal bi mu ko wax mu ne poussé vers Amadou Ba. yaa ngi dégg bu ne bu ci wax bu ci wax bu ci wax. bu ci wax ñëwal nii buxal nii. les échos mu ne les forces spéciales les pyromanes de l'UCAD les monstres ouais, du bus Tata libre. Euh, et puis euh, réplique ci campagne électorale bi pic réplique attaque et contre-attaque ñoom ñoo nekk au menu c'est tout à fait normal ginnaaw les échos allez c'est de bonne guerre enquête ñu ñëw ci coalition Benno Bokk Yaakaar journal bi mu ne l'union sacrée autour de Amadou Ba on dirait que problème bi moo amoon au début on a commencé un peu à rattraper alors ginnaaw enquête ñu ñëw nag léegi ci euh, tàggat yaram ñu tàmbali ko ak stade mu ñëw ci le premier galop à Amiens c'était hier Euh, vingt 29 lions yëpp présent nañu macha allah te ñoom ñëpp également entraîné nañu Sadio Mané ngi nii yow Nabou Cor yaa ngi koy seet yaa ngi seet Sadio Mané. très bien ñu dem ca làmb ja. ayoba nañ dem ca làmb ja tey ci suba gi mu ne contre Sa Thiès ak Ama Baldé Eumeu seen et Gris Bordeaux mieux que Balla Gaye numéro 2 journal day laaj. nabu koor bu ñu duggee ci làmb ji rek nga sëgg sa téléphone bi sëggal sa doq bi ne doo seetaan làmb te seetaankatu làmb nga ci biir mbër yi ma lim xam naa ci kuy sa mbër yow ci sa bopp yaa nanguwul ne mooy sa mbër ba tey xamaguma kuy mbëru Pape Ousmane leeraguma it kuy mbëru Ayo ba tey waaye man sama mbër réew mi xam nañ ko sa mbër daa génn làmb ji kan la Tyson ah Mike Tyson moo nekkoon sa mbër kon yow seetaanatoo làmb kon doo sa dootoo seetaan làmb doo pronostiqué waxuma loolu de. Ah. dama mais yow ci ñeent ñi di bëre nii kat nga ci gën a xaw a santi. ñana Sa Thiès. Hmm. Ama Baldé. jërëjëf yaay. Gris Bordeaux Eumeu Sène ba ci Balla Gaye sax mën naa ci boole wala Balla Gaye. ak Modou Ama maa ngi koy nuyu Ama Baldé. Ama Baldé waaw moom xarit la ndax via Cheikh Oumar Talla. Hmm. ma tudd ko Ama Baldé. ayoo ba yow nag mbër yi am nga am nga mbër ku ci sa lutteur. waaw. aywa ba loolu bu ci insisté de daa mbusoo bu mbuuf boo xam ne day mer ba woote. muy ay mami yow man mës ngaa dégg ku ne la nabu da nga ko fekk mës taa lamb wala man. mës taa lamb yaa ba pare ayoo ba nabu ko xamul fu mu dëkk. nabu ko ci buntu buntu arène bi la dëkk. c'est-à-dire que moom buy seetaan lamb bu énervé sax bu tëbee day day day retrouvé wu ci stade bi bu demoon ci stade bi à tout moment mën nañ ko bouler mu dem ci biir saalam te du ko comprendre. yenn lañ ni ñu dëkkee defet yëpp da koy muñ ñii da koy dund wel <laughs> Balla Gaye la faral waaye nangu koo wax dëkk Pikine di booy Pikine juddoom Pikine ah, màggee Pikine Pikine ami mbëri boppam Pikine laata Balla laa faral de ah. <laughs> euh, kii kon lañ tëjee agro sama yaay yi ci commentaire yi nee nañ bu ma ci wax ne lañ naa noppi. Euh, kii euh, nu mu tudd Modou Lo maa ngi juum sax kii <laughs> Balla Gaye numéro bi waaye man lu ma dal maa ngi jaxasoo jàlloo ak sekk kii seul absent ñoom ñoo ñëwul démb man kay dëgg yàlla cum laay mën ngaa tëj revue bi comme <laughs> ñu dëkk Pikine géejawaay lañ faral. pare tëjal tëjal revue bi tëjal tëjal. ah ah tëj tëj tëj tëj ah. ah ah moom teel naa gerte bi. non man di jàll. ah d'accord. Ah, euh, kon ba dëkk Pikine géejawaay. ah ah jërëjëf. jërëjëf. merci pour la pour la revue ñu ngi lay jëfal bu baax a baax a baax euh, suba nag sa bantu bale fii laa koy teg nga xam ni quinze minutes nga am pour sa revue. voilà ba suba ak jàmm incha allah euh, merci pour la pour la revue ñu ngi lay retrouver tout de suite ci euh, actu euh, commenté bi waaye balaa may dem transition damay bàyyi ayoo ba mu daal di nuyoo. ndax bi muy ñëw bëgguma woon dagg ma mi moo tax bàyyiwuma ko mu nuyoo ayoo ba bonjour et bienvenue dans Café Actu. maa ngi lay siyaar maa ngi siyaar ma ci revue de mhm. presse am neex bi te xorom. Mhm. di nuyu très internautes yi seetaan Café Actu mhm. nuyu sama. frère euh, Pape Cissé. Mhm. di am mbégte bu baax te waat fii tey pour waxtaanee actualité nationale bi. d'accord jërëjëf euh, Ayoba c'est un plaisir euh, de vous avoir sur le plateau alors sans tarder avec la complicité de la régie dañuy dem def une petite transition et revenir sur le plateau daal di ñëw ci actu commenté. merci la régie si vous nous rejoignez yéen a ngi ci seen euh, émission Café euh, Actu il est sept heures passées de quarante minutes nous sommes direct sur YouTube pouvez aussi réagir via Facebook Instagram et Twitter bu ngeen duggee ci live bi daal di abonné bés cloche notification bi bu loolee soo ngeen daal di liker puis euh, partager pour permettre à ceux qui ne reçoivent pas la notification du YouTube daal di mën a ànd ak ñun ci waxtaan bi alors dañuy dugg directement ci actualité léegi nii. Hmm. Euh, ci transition bi. Hmm. am nañ xam nga débat bi du arrêté. waaw du arrêté waaw day day continuer <laughs> ayoba euh, hmm. am na lu mu wax ne Guy Marius Sagna moo ko wax. exactement le président Macky Sall jot na bind euh, discours de passation. pour ñaar ci ay candidats. kenn ki di Bassirou Diomaye Faye keneen ki di. tudduñu ko de beneen beneen beneen candidat. waaw mu interpellé ko bëgg naa loolu it mu ñëw ñu bàyyi ko mu ñëw. waaw balaa ñuy dem ci yeneen ponk. waaw boobu dina ci am solo. ayca waaw day mel ni démb la mu génnee. <laughs>